demande sociale la comme ni ko watara defee yow mënoo jàpp aw askan wi lëmb laa lay wax nii leen ca kaw gaa yi toq dinañ daanu duñ daanu nga bàyyi leen ci kaw doo leen tegal eh, eh, eh, esel wala nga sàkk pexe ñoom ñoom ñu wàcc ànd ak dal. Euh, Alpha Condé gisuma woon nii non c'est vraiment. gis naa ko RFI de waaye laaj naa ko borom bitig bi mu ne dégg ko xaar. rek. groupe WhatsApp dinañu dina jeexee groupe WhatsApp bi. <laughs> WhatsApp bi. groupe <laughs> WhatsApp bi day doon xamal naa la. kan moo kan moo bloqué Condé moom. ah ku ko bloqué kan. kon de kenn du ko bloqué. non Watara. Watara moom bosam kon de mi def ci weekend bi moom. kon de kat daa quitté woon groupe bi man looloo ma jaaxal. ah lii la xamoon. est-ce que ah waaw waaw xam naa. kon de euh, ñàkk présenté oui c' est des c' était prémédité. ah moo tax mu quitté groupe WhatsApp. ah moo tax mu quitté. jogay nag ah. la. man c'est que groupe bi man li jogay yu def ca groupe ba man laa bëgg a xam. ak lim bind xam nga duñ audio balaa gars di jël seen audio di ko yóbbu mooy groupe yooyu nga xam ne dañuy bind rek. Mm. comme groupe WhatsApp des médias bi voilà mm. xam ne yi dañuy bind rek xam naa président yi seen groupe WhatsApp yooyu dañuy bind rek duñ bëgg ko yóbbu seen i audio tasaare ko la sa problème mooy lan la dokoy lan la bind El Hadji Macky Sall bind man tudduma de doom tudduma tur de man la deux dama dama damay dem tribunal <laughs> bugguma tonton yóbbu ma tribunal mukk le 2 avril bii di ñëw damay dem waaw moo tax 2 avril moom mooy sa convocation bi 2 la kay de avril la waaye daal Fatou Sow Sarr daal li mu wax ki loolu mooy dëgg interview bi ay waxu dëgg rik rik rik rik rik la fa soxna si wax coowal troisième mandat bii ak nit ñi nga xam ne dañoo bokk ci moom parce que loolu loolu baaxul xanaa xamul loolu baaxul ci Macky soo sa Diop John mii gars yi di profité naan ay rapport mais rapport of nag mën naa génn mekk lundi xaw ma mardi soo sa Diop John ñu koy dàq mercredi soo sa Diop kay leneen lañ ko dentaloon loolu ay affaire ay rapport ñi rapport yi jàpp ñu ngi ci mim réew ñu tuumaal sàcc ñu ngi ci biir réew. poste ya yokk. waaye yow waaye ma ni ki ñu fi gën a jiin sàcc bi gën a rëy. bi Sénégal amee indépendance wala jamonoy la joor li ñu doon jot a sàcc ci jamonoy maam di sàcc dugub yéeg yi boo ko dajalee ba mu jeex nga ñëw ci jamonoy Abdou Diouf nga ñëw ci jamonoy Abdoulaye Wade ñëw jamonoy Senghor ba ci yi boo dajalee li ñu sàcc ci alal yëpp yëpp yëpp yëpp mais liñ tuumaal rakku Macky Sall bi moo gën a bari di six mille milliards. loolu nit da koo mën a dab. maanaam réew mi li ñu war a dunde tabaxee koy tali fay ciy salaire at ñaari at ñaari at laa wax presque ñaari at budget Sénégal bi ne léegi xaw ma laal na quatre mille milliards trois mille milliards et quelque la nekkoon ñaari at ci ginnaaw nga def ko ba muy ñaari yoon moo tax gis nga li booy Abu Diallo waxoon seen jotaay loolu mooy dëkk yàlla subhaanahu wa kenn du moom tooñ askan ci boppam kon baaxul demande-moi le pourquoi xam la moo tax nee na Khalifa Sall ak ay ñoom Karim yii dafa am ñaari tribu ñaari tribunaux ñoo am dafa am ñaari tribunal dafa am benn tribunal boo xam ni ñun nit ñi ñun ñoo ko créé mooy tribunal ñoom mag yi nga gis. Mhm. ay ñoom juge Demba Kandji ne ci ay ñoom Basirou Gueye ay ñoom procureur Alioune Ndao ay CREI dégg nga yooyu mooy suñuy tribunal mais am na beneen tribunal boo xam ne c'est le tribunal populaire loolu mooy tribunalu yàlla bi. Mhm. moom lay jaglelee askan wi. yéen nag mën ngeen jël ñoom xalifa ak ñoom Karim. tëj leen ak seeni i procureur ak seen justice bii xam nga duñ dem duñ dem bitik duñ dem stade duñ dem juma ñu tëj leen entre quatre murs ñu ne fa di tëdd seen peine dëgg la wala dëgg. Mhm. boobu mooy seen tribunal ñoom. Mhm. waaye le tribunal populaire moo gën a yées foofu lañ ne rap tëj fa ko Macky Sall bi doo dem stade boo demee ñu yuuxoo la ne la sàcc nga suñuy quatre mille doo dem juma boo demee daj asalem pare ñu yuuxoo la nga dem wàq naan ñu ne la ma nga coupe d'Afrique bi saay bu fan zone jeexee nga ne fa ñàkk faa nekk aliou suñu quatre cent di la yuuxu tribunal boobu moo gën xanaa xam moo gën a metti bale yow dootoo génn doo puus doo paas doo doxi loolu yëpp yàlla daf ñuy won foofu noonu boppam tooñu askan ci boppam baaxul Macky Sall li ndaw si wax loolu na ko na ko def bu bëggee nekk ci jàmm ci mim réew yow mënoo ñi bokk ak yow mais scandale yoo xam ne du mujj fenn rapport yi du mujj fenn bu ñëw ñu lem jël teg na le ngay xaritoo ñun ñii di wax ni dangaa yaakaar ni ñun amuñu amuñu ay xarit ci ñoom ak am ay ay xarit ci ay opposition xanaa ñun du ñaay ni dëkkuñu Sénégal xanaa waaye heure wax dëgg bu jotee na ko wax waaye yow sa dëgg gi yëpp nga jaglelee ko say adversaire rek yow nga yaakaar ni lii ñuy toppee tey ay Aline Sall ak yooyu Ousmane ko bu ñu gisoon cinq cent francs faux billet ci otoom tey mu dee tam nañ ko fi terroriste tam nañ ko fi ku génn xeet dem nañ ba ne formation yi góor jigéen yi ñoo koy financé Sonko amul lu ñu lalul ci ndoddam gi mu continuer rek bañ na duñ ko déstabiliser mooy wax yow ngay ñëw di ci créé naan damay créé beneen commission boo xam ni moom mooy moom mooy mooy saytu léegi rapport yi comme si yow les corps de contrôle de l' état yow respecté woo leen sax yow jogay tas leen lan lay yow of of nag suñu waa jàng ci de kan Babacar Ba. félicitation. Mhm. mais ñooñu lan mooy la ñooñu si loolu lan mooy seen njariñ liggéey balaa neex dëgg ngay def mu leer na leen am na résultat. Mhm. amee ay nga nekk Zik FM yow ngay wax mu leer na leen ne kenn dégluwu la. mais liggéey balaa neex pire. mu leer na leen say ennemi yow chaque jour dañu lay déglu nga xam ne yow am nga njariñ waaye yow liggéey boo xam ne yow yow yow amul benn sens amul benn sens man moo nekkoon of nag démissionné naa damay bàyyi. yow et loolu salaire boobu ngay lekk sax yow boo wéetee di nga ne est-ce que man lii sax mérité naa ko voilà yow def liggéey boo xam ne du mujj fenn fenn fenn il a fallu Seynabou Ndiaye Diakhaté di interpeller procureur Bassirou Gueye nii ci ay micro directement entre collègues naan ko je vous ai donné temps defal ci décision defal te moom kàttanam mayu ko loolu am ah. mais il est obligé mujj gi muy wax sénégalais ne leen ñun duñ ci dara balaa ngeen ñoo tilimal dañu waxante dëgg nga nekk ci mim réew doonub sàcc te yow nga ne kenn du ko wax sac voleur pire aca doom tëjal jaajëf professeur Moussa Seydi ñu ngi koy féliciter encore une fois ci jéego yi mu def ci coronavirus bi da nga ko gëm yow euh, <laughs> en tout cas def na si jéego defoon na ko ci Ebola def na ko fii Sénégal gëm